d'abord dañuy dañuy sant yàlla euh, remercier euh, Alune Fall nga xam ne mo inventé auto bi auto euh, bi dawee Ziguinchor ba Dakar pour mu ñëw wan ko lolu mom wax deug Yalla dañuy koy dañuy koy féliciter sante ko ñaanal ko ci Yalla aussi parce que Sénégal fay wane encore bopam rek à travers lui que né impossible n'est pas sénégalais. et bu ñu góor góorgóorloo ñun ñëpp ku nekk wàll bi la yàlla may nga xarañ ci euh, di nga ci def loo xam ne euh, ñëpp dañ ci waaru euh, kii na dañ koy encouragé moo tax bi ma yëgee xibaar bi ci Dakaractu Serigne Diagne wax ma ko ma woolu ko pour mu ñëw mu nangu ñëw aussi moom tamit indaale oto bi wan ñu ko gis ngeen léegi directeur des transport la nekkal ak moom ak directeur des routes nga xam ne ay ingénieur lañu pour jéem a xool ñun ci suñu wàll en tant qu'administration nan lañ ko mëna gungé pour que ñu mëna encadrer limi def mën ko mettre aux normes parce que auto aussi dafa am ay normes am nu mu wara mel am ay indicateurs yu mu wara joxé am signalisation am cornet am ceinture de sécurité et cetera et cetera ba nga xamné ne peut-être dinañ ko mëna xol bu dëppoog norme yi nga xamné ne les normes sénégalaises yi nga xamné véhicule mom la wara am dinañ ko defal homologation mais en attendant ñu koy defal homologation dinañ ko utal kayit bu koy gunge pour que mu gën a améliorer recherche am gën a améliorer oto bi ba nga xam ne incha allah euh, liñ ci bëgg daal mooy Sénégal wane ne moom mun na defar auto ah beneen état bi ñuy topp mooy dinañ informer président de la république xam ne ku nekk ci Sénégal di def lu baax daf ko war a yëg bu ko yëgee daf la war a encourager kañ la pour mu utal ko audience. ñu jéem ba xam aussi ñun état bi nan lañ mun def ba euh, may ko bourse wala fu mu mën a dem euh, fi nga xam ne ay chaîne de montage de véhicules grande marque yi nga xam ne dañuy defar ay oto mun fa dem xool un peu ñoom it nan la ñuy defee oto bi chaîne de montage yi nu muy tëddee et cetera et cetera loolu yëpp xam naa bu gisante ak président de la république dañ gën a xóotal waxtaan boobu.